ذكر إن بعد الذكرى سيسكر من يخشى ويتجنبها النزوى الذي يصلى نارا الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد الحمد سكا وسكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبها إنها سال في sadaqallaahu l jërëjëf mbokki jullit yi jërëjëf mbokki taalibe yi ñu sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala julli ci Seydina Muhammad sangub sangi sallallahu alayhi wa dellu di ziyaar kilifa diine kilifa aaday ci réew mi di ziyaar mboolem njabootu Serigne Touba mboolem njabootu Maam Cheikh Ibrahima Fall euh, mu mel ni rek nuñu ko àndee nag yéen boobu ba léegi ci Touba dëkk bu sell bi ci màggal gi euh, xam ngeen ne fii ñuy àddoo ak alxuraanul karim boobu nga xam ne tout tànk bi tijjee na ko muy sabis ma rabikal axla mu mel ni rek fa la ki tax ñu toog fii tey ba teew fii tey yooyu kàddu la ñu xam ci moom muy alxuraanul karim waaye jàng xasida ak yar ndaw ñi def ci seen bopp yi alxuraan ci loolu rek lañ ko xamee mu di Serigne fàllu Mbacke xalifa Serigne Mor ma jigéen Mbacke mu mel ni këram la ñu nekk tey jii buñ ne Serigne fàllu Mbacke nag xam naa Euh, la ma ca xam bari na lool ndax man mii di àddu ngeen may gis bokk na ci koo xam ne ci sama njaboot la sëriñ bi yoral ma ko tàggatal ma ko defal ma ci moom alxuraan ba fa tabaaraka laa euh, fi mu nekk nii dama si sant yàlla sama bu baax a baax ak mboolem tuut tànk yi nga xam ne ñoom ngeen di gis ak ñi nga xam ne ñu ngi ci biti ñëpp xajuñu fi ak ñi ñëw ak yi ne si yeneen i daara yi sëriñ bi di dem ci dëkk bu nekk di dem ci gox goxaan bu nekk di dem ci diwaan bu ne di wër bawol ak kajoor fa di sanc ay daara ñu def ci euh, tout tànk yi alxuraan te sëriñ bi sàllaaw kenn ku ci nekk ku ne xam na ne euh, internat yi bari nañu euh, donga yi wala tout tànk yi di fay weer bu nekk waaye sëriñ bi ñu jàpp ci moom li muy def ci tout tànk yi maam ci lu ma leer nañu mu dem ca diwaanu Bawol sanc fa daara yoo xam ne sama doom a nga fa doom yi nekk fii ñu ngi ci bañ boole ceeg sëriñ bi su màggalu Tuubaa jotee day luwee ay oto yóbbu ko ci daara yi nekk ci gox goxaan yi jël xale yëpp indi leen ngeen ñu dundandoo moom bés bi kon def naan ne fu waay dem fu nekk bés bi sëriñ bi moom nekk na koo xam ne ku koy dundal la sëriñ bi ku koy dundal la di ko def ci njaboot gi sëriñ bi buggul lekk bàyyi njaboot gi bëggul naan bàyyi tu tànk yi loolu moo waral mu yónnee ay oto fu daaraam nekk mu jël xale yi indi ko fii ci Touba lu mu lekk xale yi lekk ko lu mu naan xale yi naan ko wala sëriñ bi day jox sax xale yi ñuy ñuy lekk te moom sëriñ bi daanaka du lekk lépp rek ngir defal yàlla ak Serigne Touba ndax non la ko bëggee waaye bala may jottali kàddu gi fi tay ci serigne Fallou Mbacké damay jox rek oustaz al oustaz ibrahim Ndiaye mu ko oustaz Lamp Ndiaye waaw ndeysaan xarit la ki serigne bi tay ko jotaay bi kon kon al oustaz tafadal alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh aouzu billahi min asheytan rajim wala aqibatu lilmutaqin wala udwana illa ala alsalimin أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام alhamdulilah wala aqibatu lil muttaqin ginnaaw ban sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sangu sang yi di sant Serigne Siri Maxtaar Mbakke mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mboolem jullit comme ni ko soxna jaara waxe ñi ngi fii tey ci daaray Serigne Fàllu fekk fi ay tuut tànk muy góor muy ay jigéen te dara indiwu leen fii hamham. dul sàkku xam-xam te sàkku xam-xam nag Seydina Muhammad li mu ci wax bari na ba tax wax na ne xaala alayhi salaatu wasalaam nee talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima mu waxaat ne utlubul ilmi walaw bi siin sàkku xam-xam farata la ci julit moo xam julit bu nga moo xam julit bu nga mu dellu ne sàkku xam-xam de jarna wala matna dem fii ba réewi siin kon loolu lépp ne jullit bu ci nekk war nga sàkku xam-xam sëñ Fallou mii nag tànk yooye nga xam ne eh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dénkan na ko képp ki ab jullit ca tànk yooye la aw ba tax mu taal daaraam fii ci Touba waaye tamit rawatina ca tund bawal ak fépp fépp ci àdduna bi lépp rek ngir tasaare diina lislaam kon loolu tamit lu rëy la ci yoonu lislaam lu rëy la ci yoonu murit waaye lu rëy la ci yoonu wépp boo bépp tarixa boo xam ne nii tariqa l'islam la wala ci yoonu julit la ndax kat Sëñ Tuubaa dafa wax ne fa kullu wirdin yuridil murida li xadratillaa walan yahida siwaun intama ila al jilaani aw intama li ahmad tijaani aw li siwaahuma min al aqtaabi is kulluhum qataan ala sawaabi Sëñ Tuubaa nee na tariqa yépp benn lañ ndax kenn bépp tariqa bu ci nekk daf lay woo waaye tamit ci yoolu ci yoonu yàlla la lay woo kon Xaadimu Rasuul dafa boole tariqa yépp tamit moo tax Sëñ Fallu boo dikkee fii doon na rek ay taalibe murit rek nga fi fekk waaye taalibe yëpp ngay fi fekk képp ko xam ab julit nga képp ko xam na ni sakku l'islam wala alquran karim mo mo nga bëggal sa dënn ya nga fi tay ba tax na gis ngeen mbolo mi nim mu ni machallah tout tank yëpp ñëw fi loolu tamit dañ ko ci sant lool di ko diko di ko ñaanal xamna naa ay cadre yo xam dañ koy barkeelu ci bis bi ndax moom daanaka bu nekké mom dañuy xawa duñ mëna lu bëré ba duñ ko mëna wax ci kanamam kon soxna jaara xamna naa yenn la ci ay cadre yo xamna ni na dama non nak ci rek barke khadim Mustafa واعوذ بالله من الشيطان الرجيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم جيرجيف استاذ لامب نجاي مو ملني كاد يوي نم كو واخي نونو لا نده جتاي بي نين غيس اك تو تانكي ني رانك ньо خامني تبارك الله اي طالب شيخ لا ني ني وور وغا خامني فتبارك الله كي سون كانام لا ني جودو كي سون كانام لا ني يارو دون اي طالب شيخ واي سين واجورو جابلين تي لوخو تك لين تي لوخول سيرين بي امنا تي كو خامل صح ندسان Euh, waajuram oustaz mi xam na ko ak ñi fi toog muy mag ci ñun nga xam ne yàggul a génn àdduna ja euh, bokk ci a cheikh jàpp ñaari doomam ci loxo dénk ko sëñ bi àddunaam ak àllaaxiraam kon nu mel ni sëriñ bi benn jullit yi mu ngi ci sax dàkk dàkk dàkk ñu ñu nekk ak moom nag amuñu luñ ko feeyee dañ koy bàyyi yàlla suñu borom subhaanahu wa taala sëriñ Touba bi nga xam ne moom lay liggéeyal di maamam yàlla na ko fay ngeen ngi fay mel ni sëriñ bi bu ñuy wax ci moom du jeex benn yoon géej la rek sëñ bi géej la géej la goo xam ne kenn ku nekk da ngay tànk rek bàyyi sa moroom mu tànk te du tax géej ga jeex kon sëriñ bi duñu def lu rek delloo ko kàddu yi di ko wax ne salaamaaleykum Mbàkke gannaaw ba ñëwee tuubaa dañoo ñëw njëkkee ci yow ndax def naa li waay di ut lu nekk fii ci dëkk bu sell beeg lu waay di sàkk lu nekk su ñëwee ci yow mi def naa ne man de gëm naa xel ne su ma ñëwee ci yow dinaa dajeeg ngërëm loolu dinaa dajeeg loola loola waral tey bi ñu dugg see Dakar ñu def directement ñëw continuer si yow fas yéene ubbeeg yow suñu émission xam ne feneen fu ñu dem itam rek lu ñu am ci yow rek dañu ko mën a boole te daf ñuy doy sëkk sax bu ñu yemoon fii kon nag salaamaaleykum wa rahmatullah Mbacke yaaram waaleykum salaam wa rahmatullah alhamdulilah lazi hadana li haza ma kunna li nahtadi lawla an hadana Allah la had jaahatu rusul rabbina bil hak. wa nudu an tilkum al janna ursuma bi an kuntum tahmalun ñu ngi nuy bokk jul yepp di nuy bokk talib yi di len siar di ñaan sun borom nang ñu siar ñu xamal le yo soxna mam jaara ak ñi nga andal ñu ngi len di siaré te di len nuy te di leen dalal jàmm ak ci rajo bi ngeen bàyyeekoo ak télévision bi ngeen bàyyeekoo ngay xarit di wëlëre ci lépp nga ñëw fi ngir jëmmi yàlla ak kolëre ak jëmmi Serigne Touba ak taalibe bi ñu la dalal jàmm fii ci nga xam ne mooy kër sëñ Mor Madjiguène Mbacké sëñ Mor Madjiguène Mbacké nag maam Muxtaar Mbacké mooy waajuram maam mu ngi koy wax sëriñ Ndiaga Hawa sëñ Njaga Xawa moomu Muxtaar Xaadama Muxtaar Xaadama Ibnu Abdullah Ibnu Abdullah moo jur maam Maharam moo jur maam Balla mu jur maam Ron Sër mu jur sëñ Tubaa noonu lañ demee ki bokk kon bu ngeen fi ñëwee Muxtaar nag doon koo xam ne ku bëggoon Sëriñ Tubaa ndax wax nañ ne daana wax na Sëriñ Tuubaa yow jant ba nga boo xam ne kenn mënu laa tey so ku bëggoon Sëriñ Tuubaa la ku ko fonkoon la te liggéey bi daana ko wax daana nga wax na na ko li ma ci jaaxal mooy sa da dem jàmm ñëw waaye boo ñëwee suñu gisee du duñ gisantewaat nga xam ne ci gàttal bi sëñ bi demee bi mu ñëwee ci wax Moussa Sow ci ci ci ci ci ci Ndakaaru rek te sunu maam wàccu liggéey nga xam ne jubtu gisanteeg Serigne Touba te Serigne Touba doon ko laajte ngir kóllër gu woon ak fonk mu ko fonkoon Serigne Touba daanaka wax na ko waajur bàyyi ma tarak la ko daan wooyee daanaka wax na ko léegi da waaju baax nga te waaju baax dënn bu du feeñ del sàng sa dënn kon Serigne Touba comme na ko baax nga ko baax nga waaw moom loolu yëpp da ko xoolal jënd ko taalibe xam ne Serigne Touba mii nit la koo xam ne suñ borom a ko waajal dafa bokkoon ci ruuxu ruux ak akbar yi nga xam ne dañoo màgg nii nga nekk nga xam ne dañoo dañoo doon ñu mat moom loolu la xamoon ci Serigne Touba ba jàpp ko Serigne Touba nag di jëmm joo xam ne képp ku suñ borom dogal nga ànd ak moom war nga sant yàlla bu baax ndax nim mu ko waxee rek xarit ci yow ma sabti saamin hasar li xidmatul muxtaar fii safri safar maanaam jóge na fi ci Mbàkke bar ci bisub tay bisub gaaw rek ko suba la la fi jóge won ne lay dem ci tukki bi liggéey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam waye nak bi muy dem day mi ngi àndoon ak mustaloona ak anbiya ak awliya yep ba ci wa ahlul abadar sa ànd ngom ñoom ñu mu jógee Mbàkke bari ba mi mu demee bani ni mu demee Louga bani ni mu demee Ndar bani ni mu jóge fi jóge dem dakaru bani ni mu demee tukki yéeg yëpp waxtu wu ne bis bu ne nattu bokk suñu borom nattu waaye suñu borom musul ko ci jàmm mu dellu si bu mu dellu see bu mu dellu see ci njaaram nak daal di wax taalibe yi xamal na len ne ba ca bako sun suñu borom rek mu woo taalibe yi xamal len ma sant sa sama borom sama bis bii ndax man de luma am ci bis bi la ko amee yeen ngeen am ci bis bi ngeen ko amee kon nag bis bi fukki fan ak juróom-ñett ci safar bis la boo xam ne Sëriñ Tuubaa ci boppam moo ko njëkk def ci njaarim bi mu koy def wax nañ ne euh, booba Sëriñ Mulaay Buso la ko digaloon Sëriñ Mulaay Buso nga xam ne booba seen soxna moo ko joxoon addiya benn gàtt bu jigéen nga xam ne gàtt bi aw bëy la waaye sëñ bi de ari yebal na gàtt bi nañ ma ko soppil bëy wi ni ko mu jugee dem ba ci sàmmkat bi fekk ko fa mu fekk fa waaye mu ko ko yow da xanaa sëriñ bi sëriñ bi jox la mu mun na ko waawoo mun ko mu mun ko bi day nee na dafa bëgg ñu soppi gàtt bi defal ko ko am xaaf am xaaf mu na ko waawoo bi ma gisee laa xam bi lay yoni mu ko duggal ci biir so diggee ci biir gatt bo gis rek bu la neex rek nga jël ko mu jox ko gàtt tënku bay wowe mu set xaf bako sop mu jël ko bi ñewé yit andi ko jox ko señ bi bi ñu ko jëfandikoo yit ñett xaj la ko def ben xaj bi ci kërëm mu jox ko sama son soxna bu so wajju sëñ bu Xaadir ñaari xaaj yi mu séddale ko ci njaboot gi maanaam moo ko njëkk defal boppam daana suñ ci àggatee dañ ma ci la suñu borom kon nag suba lay doon fukki fan ak juróom-ñett ñu fas yéene ko waajal ñu ko waxee ci jës bu rek ci gàmmu rek tax si mu xob ndax dañ ko daan def tabaski tabaski maanaam dañ ko daan wax tabaski waat ñu ko déggee nag daa leen dajale na leen bu leen ko defati maanaam buñ ko waxé buñ ko défé tabaski day nuru bidda ta man du sos bidda ndax dañ ñaan yow ñaari xar buñ défé tabaski benn baye fi ñu tabaski wat té lool bu yagoon ba yagu ñepp non la def waye serigne touba moom dafa don ku yéssal nim ko waxé rek wa bi jaddid sabil billahi dan awala man kat dama yéssal ci nam tu te du kenn du metal kenn dafa dafa yeesal moo tax bi mu gisee loolu rek mo xone bidda la rek dafa taxaw na nañ ko dindi daal tudde batu magal nan nañ naa ko tudde magal magal boko xolé ñetti araf la magal xam magal mim gi mawludun nabi la kef gi di kazu rajab laam gi di latul khadra muy magal li nga ak ci làmb lépp lepp baatu màggal ci sëñ bi ko sa a hmm da koy ñu ko tuddee baatu ñu ko daan def fu nañ ko daan def ci buur yi fu lañ ko daan def c'est Mour Moussa bi mu momit daan ko def fu ñu def ko ko defee waaye Cheikh ci xop Cheikh mourou Fadal bi mu toogee loko dadi wote nañ ko dañ ñëw defe ko fi ci dëkk Seigne Touba bi té la tamul mur yépp nañ ñëw diko defé ci dëkk Touba bi way fu way nekk am ngant it mën ko defé bu way bu ñëwee it ñu ñu def ay bernde jang alquran jang qasida def salaatu ala nabi ndax ni ñi berneel suñu bakkan no lañ bernde suñu ro te ro dafa am lu soxla ndax muy zikr tudd yalla tudd yalla nak buñ ko waxe man na yaatu zikr muy jang alquran jang qasida def salat ala nabi yep ngir ko yalla baye xal sa borom xamna sa borom bur bu mag la bur bu kawe la bur bu yëkkatiku la mom yalla sun borom subhanahu wa taala bis bobu nak yalla rek ko mom suñ tuba mom lu kenn ku bay sun borom dan nañu sante sun borom nak la in zakatum la sidakum to sun borom nee na képp kuma ma ma dolli la motax bañ ko tambale ba neug ni si bis bu ne day yok yalla ko mom téyel na bopam kum kep ko koo xam ne euh, at mun na fek na la fi rek na nga sante yalla bu baax te fasiyen lepp lo ci def rek sun borom fasiyen ko nangu kon yalla nangu yalla nangu lepp nu ci euh, li ci dig muy ab yu nan ko def lim ci ter yep nan ko moytu ko mun ci jaar sax buñ ci xol sax mu jang alquran jang qasida def salat ala nabi berde te yàlla tax te bo xolante ji boko sarawante ji len lu ci rek day lu am solo dajal am mbooloo kep ay julit ngir jàng alxuraan dajal mbooloo rek ay ay julit bernde len te yalla tax xam nga day mag mag mag kon ñu sant yàlla baax nañu yokk góorgóorlu gi doli jamu yalla gi fatlu ko sun borom xam ne àdduna moom dafa jeex ba noppi te doon fi jóge te fexe ba lépp loo xam ne jël def nañ ko ci kaw suuf rek bu ndaje suñu borom muy lépp muy lépp leer rek ba xam ne bi dañuy sikki ci ëllëg suñuy moroom buñ jàkkaarloog suñu borom cër yëpp rek man a seere na bi ñu nekkee ci kaw suuf kat doon nañ bakk yàlla doo nañ jaamu yàlla. xam naa ne wax dëgg yàlla xëy na du ñàkk ndax mbooloo mu toll nii ak mutualité ak yi ci gox goxaan yi nga xam ne. laajoo benn waajur benn dërëm ngir mu def ko si doomam dangay def rek te yàlla tax loolu moom laa lay laaj diis na wala diisul na xam sax xam naa ni xaw na diis waaye itam ndax ay ndimbal ñu ngi jóge fenn di ñëw ci yow ngir ngay def nii te yàlla rek tax. ah déedéet loolu moom diisut ndax Sëriñ Tuubaa ci boppam loolu la bëggoon ci kaw suuf Sëriñ Tuubaa loolu la bëggoon ci kaw suuf mooy jàng ak jàngale. te ñun fa Serigne tubaa jaaroon lañuy jaar te suñu borom képp ku ko nekkal rek mu nekkal la ñun dañoo taamu liggéeyal yàlla liggéeyal Seydina Muhammad liggéeyal Serigne Touba ci xeetam wi mu jël ndaw ñi def ci ñoom yar def ci ñoom teggin def ci ñoom alxuraan def ci ñoom lislaam bu set wicc def ci ñoom tawhid bu def wicc te loolu lépp na dañ ko def ngir jëmmi yàlla te xam ne suñu borom ku ko liggéeyal mu fay la ba ba tax na dañ cee sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala baax ba tax na fu ñu mën a nekkit loolu mooy suñu ittee loolu mooy suñu bëgg-bëgg ba it sant nañ yàlla ba suñu buroom it ñu ñu fu ñu nekk rek wata fa ci yàlla nit ñu fekk fa ñu liggéeyal fa Sëriñ Tuubaa jox na ndaw ñi ñu leen alxuraan tëg leen ci sariya bu set wécc ñu xam ne rek yàlla rek ay yàlla Sidna Muhammad ndawal la moo xam ne yàllaa ko yónni woon Cheikh Ahmad Bamba Abdullahi wa Xaadimu Rasul ñu daal lañ ciy sàkku daal liggéey ci Sëriñ Tuubaa rek te it yaakaar na ne suñu waa ngi ñu ngi ci defal tawfeex bu baax a baax a baax a baax a baax ba tax na ku ñuy képp ku ñu jox sa doom ngir yàlla ñu téye ko yaral la ko te yàlla naka tax ngir sàkku ci ngir ngërëmu suñu borom subhanahu wa taala rek ñu gis ne sëñ bi mosuñoo gis benn yoon ci mbooleem daara yi nga am muy daara yi ñu la xamee benn dongo boo xam ne am na pot di wër di yalwaan yi suñu koo gis ci say daara loolu tam nekk na kéemtaan ci ñun waaw loolu it maanaam maa dama cee sant yàlla bu baax ndax maanaam fuñ dem fu ne dañuy dajale njaboot ga fa nekk xamal leen ñun li liggéey mooy lan benn ci dëkk ba nga xam ne yow fa nga nekk muy Touba Lulub dañoo dem sanc fa daara di fa liggéeyal yàlla xam nga leen dañ fa sanc daara yóbbu fa ndaw di fa yàlla ak yonent bi Cheikh Ahmad Bamba la fa nekk ci xale it ëpp na ñaar fukki xale waaye sant naa yàlla ba benn dongo yëru fa di jalwaane te kenn du fa ab dongo ba nga yeureum ko japp na ki dafa nek ci fitna ba ci khat khat dekk ba kenn ku ci ne jël nga sa dom sa donga def ko niki sa dom diko jox agn diko jox reer diko jox te yalla rek tax gan gu fa ñewit muy gudd muy bëccëg so fa ñewé da nga fekk xewale nek ni gan ba betum. bett mukk loolu nag li ngoy wax leg rek manam sant yalla mi nga xam bi monu defal lool yow li mo xam nga ko deug ci deug ba bemul dong ben dong bo xam ne xiif mar mbaa mu yolaani mbaa muy son mbaa ji lenn tilimuñ déedéet ndax dab dongo dafa war a set wicci ba ko gis xam ne kii kat day sàkku leeru yàlla gi ab dongo wurta tax rek rip ba boo gisee di ko yërëm déedéet loolu passé nañ ko ma ab dongo dafa war set dongo yi ñun ñuy koo leen gis ñi ñëpp fa lañ ne ko leen gis xam set wicci su ngoon jotee sa ndey daara ñëw sang la jox la yére toppatoo la sa dara manqué wut lii tu tànk yi tey doy na ci firnde sëkk sëkk sëkk barke euh, kon ñun ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di ñaan suñu borom may ko fan gudd lool wu ànd ak wér ci barke Serigne Touba lépp loo xam ne nam na ko liggéey Serigne Touba ñu ñaan suñu borom may ko mu àgg àggalee ko sagoom oyofal yéen bi tooy si boppam ndax sëriñ bi li mu njaboote macha allah yal na àggale yéene gi ci tout tànk yi yal na àggale yéene gi ci barki sëriñ Touba kon moom moo tey loolu moo ñu indi woon ci sëriñ Fallou sëñ bi ba amul lu ciy sànniwaat rek xanaa mu ñaanal ñu si kàttanu borom bi. waaw yéen rek seen taxawaay ah, di leen sant bu baax ndax xam ne yéen ngi ci métier mu moo xam ne mu jafe la te mu am solo yéen nag ndax bépp xibaar bépp xibaar boo xam ne jottali ko ko. muy xabaar boo xam ne nit ki jë na ko yokk ci yàlla rek loolu aw yiw la su ko defee yéen ci mécc yéen ngi sàkku mécc moo xam ne mécc mu am solo la waaye doy na waar loolu nag waaw ni ko rek in jaakum bi damit fa tabayyanu waaye lépp loo xam ne a koy joxee xabaar it da ngeen gëstu loolu ba xam ne leer na ba xam ne lii kat amul benn falsafi ngeen jàllale ko ci julli ci jaamu yàlla yi ndax am na dañoo gëm sur dañoo gëm journaliste lool loolu la ñuy diglu su ko defee yéen xibaar bu yéen di xibaar rek nañ ko gëstu ba xam xibaar bu wér la ngeen ngeen tasaare ko ci ci yàlla yi ah, defuñu may sant leen gërëm leen seen liggéey bi yéen liggéey yàlla na ko yàlla defal téléphone bi téléphone télévision bi ak rajo bi yàlla na ko yàlla barkeel mu bokk ci télévision yi nga xam ne bii li ci borom bëgg lépp mu am ko ci kaw suuf ah, siiw barke ñëpp ko ku ci liggéey it am am am am njëriñ bu baax biir biti ci barke Cheikh Mamadou Fadel waaw sant nañu baax waaw. jërëjëf alhamdulilah moom alhamdulilah jërë ngeen jëf.